wax ci projet RECOSA bi nga xamante ne GIZ moo ko njaboote am na ab lël bu nu ubbi tey jii foofule ca Saly Portudal ñu cay tàggat seeni ndaw rawatina agent Bawos yi ak it point focaux yi ñeel dalal gi ñu war a dalal doomu aadama yi jóge ci àdduna wërngal këpp di amal ay tukki eh, kii di El Hadj Abdou Karim Cissé eh, moom mooy conseil technique eh, direction bi ñu dénk doomu Sénégal yi ci bitim réew kàddu yi mu dénk Cheikh Ahmed Tidiane si ñu teewlu ko. Euh, ndaje bi tey dañ koy dañoo dajale fii tey lu ñuy wax agent BAOS yi ak euh, point focaux BAOS c'est-à-dire que boo demee tey ci région Sénégal yi ministère affaires étrangères direction général dañu am léegi ay services yu ñu déployé au niveau des régions maanaam ci région yi am na tey boo demee lu ñuy wax bureau d'accueil d'orientation et de bi maanaam bureau bi nga xamee ne tey mooy accueillir boo ñëwee tey nekk sénégalais bu nekkoon bitim réew ñëw wala sénégalais boo xam ne da nga ñib si ñib si bu gaaw wala sénégalais bu nga xam ne da nga ñëw sax vacances waaye aussi sénégalais bi nga xam ne yaa ngi xalaat tukki tukki bu jaar yoon biir yooyu nag dañ lay déglu xelal la euh, jéem la euh, won yoon bi waaye loolu pour nga def ko faw nga am ay jumtukaay yu nga xamee ne yu am solo la moo tax tey ñu ne nañu dajale fii agent yi jumtukaay yi nga xam ne soxla nañ ko naa am ay agent yoo xam ne yu compétent lañ waaye soxla nañ jumtukaay yi parce que dañuy jàkkaarloo ak euh, façon bu nekk. pour loolu nag ñu boole leen ak ay borom xam-xam ñoo xam ne ñoo leen di jàppale tey pour que ñu mun a am xam-xam yooyu jumtukaay yu bees yooyu xarala yooyu pour mun a jàkkaarloo ak li ñu leen sant parce que dañ leen sant tey ne ministère affaire étrangères direction générale munu nekk fu ne léegi service yooyu nag yéen leen fay nekkal pour mun a joxe xalaat ak xam-xam ak euh, orientation yi ndaje boobu nag ñu ngi ko def si ndimbalu projet bu ñuy wax RECOSA avec coopération allemande nga xam ne BMZ moo ko moo ko moo ko financé ñu profité si occasion gërëm leen gërëm aussi si yeneen partenaires yi nga xam ne jàppale nañu pour ñu déployer wu si bureau ba aussi.